xoññal mun na ci indi ay mun na leen ci defendre Pape Alé Niang a toujours mené de combats de principe sa patron deux heures quinze minutes la toog ci plateau Pape Alé Niang le 31 euh, décembre 2011 boobu noonu Pape Alé Niang journaliste la woon wala militant la woon ah léegi da ngeen a yor nguur bëgg def naka sudul noonu mu waroo ci yéen ak xalaat ngeen bëgg koo jël di ko taf wala di ko dendale ak ay parti politique en fait foofu la foofu la manipulation bi nekk te nit ñi war ci am xel yeewu ci sénégalais yeewu ci bu ngeen jaaree fu nekk mënoo leen ko ger ngeen jaar fu nekk mënoo leen ci moom dara ba mujjee koo jël dugal ko ci kaso léegi nag loolu doyatul dangeen a am beneen mission mission beneen bi ngeen am mooy dañuy dem jaxase ko ak askan wi dóor ko ci kaw askan wi wane na li mu doon def du journalisme militantisme la woon mais mustapha Diakhaté Pape Alé li mu doon def trois ans yi yëpp lan moo tax amuloo fitu génn interpellé ko laata moo dugg fi mu nekk c'est de la malhonnêteté intellectuelle c'est de la lâcheté parce que nit bu fekkee da nga ne gor nga góor nga nga am looy reprocher nit muy yeewoo ci réew mi ngay yeewoo ci réew mi nga koy gis xam fi mu dëkk boo ko soxlaa ne carte ne ko carte téléphone mais bul bàyyi ba mu nekk dans les lien de la détention ngay wax loo loolu naka sa dul noonu loolu du am fit du am ngor te yow xam nga kan mooy Pape Alé xaw ma kan moo ko xamul mais yow xam nga kan mooy Pape Alé Niang yow Moustapha mais nag sa position bii nga amee tey nii face à bon nombre de personnes munul bett kenn xam nga lu tax mënul bett kenn Moustapha Khalifa Sall daf la jël ci maire bu dakaar Dakar ngay liggéey ci maire bu Dakar yow Khalifa Sall gënal la sa noyyi gi ngay noyyi mais biñ ko jàppee ci affaire u maire yi de dakaar lan nga yàqul Khalifa Sall sur les plateaux de télévision et les sites internet ku def loolu nag xalifa Sall dama jàpp ne boo ko defee keneen war na koo bañ a metti bërki Dembo Njaay bu ñu sori imam alin Badara ndaw dafa génn àdduna nga wër télévision yi sosol ko lu ne weng ci réew mi maître Moussa saar di avocat am dem ci plateau de télévision yi weddi ko ba mu set wicc ay njabootam weddi ko kuy sosol ku dee kuy dund mat ta wax te ngeen yéene ko dee kuy sosol ku dee ma kuy dund matu la wax Moustapha Diakhaté ku la seetaan ngay wax ku xam nit def tuuti sociologie xam xool la ngay wax ngay wax mooy ne que maanaam méchanceté ah méchanceté bi nekk ci yow ak mbañeel gi nekk ci yow nga koy développé mu ngay gëq ci doomu aadama yi mais dama leen waxoon lu leer Pape Alé ëpp leen ko ay mbokk ci réew mi ëpp leen ko judd ci réew mi bu ngeen yaakaaree ne nag da ngeen di saaga ñeneen kenn du leen tontul yéen a ngi nax seen bopp Pape Alé ku ko saaga ci réew mi ñu tontul ko je prends toutes mes responsabilités ak lu ci mën a xew parce que nag réew mi fulla ak fayda bi ngeen am yéen ak audace ak liberté bi ngeen am di wër plateau télévision yi matin midi soir di toog di wax ci nit ñi naka solul noonu saa soo leen paree rek abal leen ñu fulla boobu ak fayda bi ak audience bi ñu tontu leen ni leen war a tontoo parce que réew mi da ngeen war a xam ne seen ndey yi doon nañu ko doonu leen ko seen ndey yi donnu leen ko seen baay yi réew mi dama ne doonu leen ko seen ndey yi doonu leen ko seen baay yi te li ma leen waxoon laa leen di waxaat réew mi tàmbaliwul 2012 te du jeex 2024 il faut qu'on se respecte dans ce pays te Moustapha Diakhaté yow euh, tu devrais et la dernière personne à s'exprimer comme ça sur Pape pour la bonne simple et raison que yow xam nga ko bu baax mu xam la bu baax te dama lay wax lu leer nga xam ko mooy man li may def nii ak yéen xam nga lan la entrée la fi mu nekk mi ngi noté saa yi su génnee di ngeen jot seen dose yéen ñëpp un à un te bu génnee dina la jox plat plat de résistance jox la dessert tegal la ci un petit café man li ma leen di jox nii entrée la plat de résistance bi mi ngi ñëw jóge ci moom dessert bi mi ngi ñëw jóge ci moom ak un petit café ci va avec parce que nag réew mi dañoo toll foo xamante ne li wolof di wax rek ku dof dof lu bay mbaam mbaam lu nga dof dof ba lawbe lawbe la ci kawam dama ni moomu leen réew mi donnu leen ko ci ndey donnu leen ko ci baay ba tax ngeen war a mën a toog ci plateau yi di saaga ku leen neex ngeen teg ko fan ngeen teg ko fan Pape ale ëpp leen ko mbokk ci réew mi ëpp leen ko judd ci réew mi ku ko wax naka su noonu c'est parce que da nga koo bàyyi ba mu wan la ginnaaw te man nag je prends mes def lii may war a def te xaaruma ci conseil yu kenn xaaruma ci avis kenn parce que réew mi nit ñi dañoo jàpp ne dafa am ñoo xamante ne ñoo war a ŋàbb rajo yi di wax am ñoo war a xamante ne dañoo war a noppi di xaar loolu mooy jeex ci réew mi mais Moustapha Diakhaté yow war ngaa rus ci sa bopp trop war ngaa am gàcce si sa bopp parce que réewande dafa jekkul sax ci gone sakkamtuma ak muskàllaf réewande moo jekkul ci gone waxatuma la ak dafa jekkul ci muskàllaf ci gone sakkamtuma muskàllaf yow war ngaa am gàcce ci sa bopp nga am ay doom ñuy yéewoo ci réew mi amuloo beneen liggéey budul répondeur automatique quelqu'un comme toi qui a été le président d'un groupe parlementaire d'un parti politique au niveau de l'hémicycle nekk député à l'Assemblée nationale d'un parlementaire tu es devenu un un un un répondeur automatique et puis téléguidé bu fekkoon répondeur automatique spontané nga sax ñu mën a wax mais tu es devenu un répondeur automatique téléguidé chien de garde yeew la fenn bu dara xewee rek ñu yeewi la ne la demal mbaw ci kii demal mbaw ci kii nga wër plateau yi mel ni robinet mbedd dama ne la réew mi day loolu day jeex fii ci réew mi de fii ëpp leen fii làmmiñ te làmmiñ du lekk moroomam te ñorul il faut qu'on se respecte dans ce pays nit ñi bu leen joxee cër cër boobu nit ñi leen jox da leen koy delloo c'est ça la Vous pensez que vous vous permettez un peu de, de, de, de, de pavaner sur les plateaux de télévision et les chaînes, de, chaînes euh, sites internet pour dire tuer n'importe quoi. am leen jom am leen décence am leen dignité seen bopp xam ne ay muskalaf ngeen dara waru leen jaral ngeen ni porter ay combat yoo xamante ne bu duñu jëmale fenn un ancien président d'un groupe parlementaire dans le qui est devenu un simple répondeur automatique c'est la honte ku la gis ni ngay dem ci plateau yi di wax sax ñu xam ne yow sa dundi neexu la en fait loolu mooy moom loolu mooy dëgg bi en fait parce que da nga jàpp ne da nga bokk ci nguur xeex ko ba ngeen tee ko ñu bedd la simple la teg la fële sa dundin naqari la maintenant haine boobu ngay développé cette haine viscérale noonu mais ci ñëpp nga koy xëpp man bi ma la seetaanee ci benn site internet ñu posé la question ne la Cheikh Omar Diagne ak Abdou Abdou Karim Gueye xurum xaq ñi ngi ci kaso bi ndax li ñu wax ci wax waxu Imam Ndaw nga ne damay ñaan yàlla ñu yàgg ci kaso bi ci laa xam ne yow doo sax nit doo sax nit parce que tout simplement man dama jàpp ne même sa noon bi nga xamante ne da nga noonoog moom ba àdduna ñëpp xam ne da nga noonoog moom doo ko ñaanal kaso doo ko ñaanal kaso ci yow laa mës déggee ci jullit ku ne jullit la àqan ku ne jullit la di ñaan doomu aadama ni moom mbokkam ni moom sénégalais ni moom yàgg ci kaso ci yow laa ko mësa déggee ci yow laa mës a gisee nit ku génn àdduna nit ku génn àdduna nga koy sosal ci yow laa ko mës a déggee dama ne Moustapha dara ñoru la yow ak sa yeneen xeetu politiciens yi ngeen di àndal dara ñoru leen lu dul ay privilège bëggu leen réew mi gëmu leen réew mi dara ñoru leen lu dul ay privilège seen bopp moo leen ñor ak seen poos faut qu'on arrête dans ce pays. Vous ne représentez absolument rien dans ce pays-là. ban métier nga am à part politique xameewu lañ la leen lu dul politique politique du métier nit da am métier jàng ko mokal ko doog dem dem def politique là je suis d'accord guddi yi ñu toll à part aller sur les plateaux de télévision di yàq lu mel ni xame nit ñi lu xew ñu yeewi la nga wër site internet yi lan mooy sa liggéey leneen lan ngay liggéey il faut qu'on se respecte dans ce pays te muskalaf bu amee fulla ak fayda moo ko may boppam li ñu nekk nii nag di ko dox par rapport ak Pape Alé kenn mënuñu ci divertir ak koo mënti doon kenn du duñu divertir bul sonn kenn duñu divertir dem leen ci plateau yi yéeg leen ci jaww ji créer leen fa plateau toog leen fa takk leen seen ay rajo ratatati leen kenn du ñu divertir li ñu bugg a def dañ koy def plan bi ñu laal di ko dérouler dañ koy dérouler sur l'international dérouler ko un peu partout kenn du ñu divertir personne ne peut nous divertir réew mi donnu leen ko ci ndey donnu leen ko ci baay ba tax na lu tax ngeen lu leen neex ngeen wax nit ñi lu leen neex ngeen wax nit mais non arrêtez à un certain moment donné parfois ça me, ça me fait extrêmement rire parce que tout simplement, tu vois ce sur les plateaux de télévision, mais di wax lu mel ni musiba Macky Sall et en dessous tu es ami avec la première dame ñun xam nañ li xew ci réew mi ah. tu es contre le mari mais tu es ami avec la première dame dama ne dafa jot dafa jot sénégalais yi opinion sénégalaise bi. ñu xam ces politiciens véreux la manipulation yi nga xamante ne dañ koy def jëmale ko ci askan wi di wane ne ànduñoo diw et que par contre taison topp topp nga loo xam feneen ñëw nettali ko il faut qu'on se respecte dans ce pays yéen a ngi lang ak ay sàcc yoo xamante ne dañoo jël les deniers publics Pape Alé Niang li ma leen ko waxee woon laa leen koy waxaate de sàccul alalu kenn pour dem de ci kaso bi sàccul ay deniers publics du da nga ne di membre de sa parti la au pouvoir mës nga dem ci plateau télévision ba wax ci ñi nga xamante ne ñoo sàcc alalu askan wi of nag jàpp leen noir sur blanc wax ci wax ci yaa ngi làng ak ay sàcc yoo xamante ne dañoo sàcc alalu askan wi wax leen ci bu ngeen yaakaar nee na Pape ale amul mbokk ci réew mi yéen a ngi nax seen bopp gënoo leen ko dëkk ci réew mi ëpp leen ko judd ci réew mi ëpp leen ko jaar-jaar li mu def ci réew mi defoo ko bu pensez que nit ñi dañ leen di bàyyi nii rek di leen xool c'est parce que voilà yow la diw ngay dem ci plateau télévision yi di saaga nit ñi gratuitement loolu lay jeex de loolu amatul fii de cette sorte de manipulation tout azimut sur les plateaux de télévision et les sites internet day jeex moom leen nit ñi war nga am gàcce ci sa bopp nag ndax muskalaf bu toll ni yow lu mu dem ci plateau wax ko àdduna yëpp dégg ko bu ngoonee nit yéeg ñi yéeg weddi ko devrait avoir honte réew mi nag ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk képp kuy sénégalais am nationalité sénégalais mais ci réew mi nga bokk réew mi ñun ñëpp ñoo ci bokk yam sénégalais yi ñoo xooloon ba jàpp ne war ngeen a war a yu réew mi ñu yëkkati réew mi teg ko ci seen loxo sénégalais yooyu bu ñu demee mais sénégalais yooyu dañoo amul droit am regard ci li nga xamante ne moom la réew mi di doxee wala yéen dañ leen war a dénk réew mi rek après nekk ay jàmm toog di leen seetaan ngeen dawal lu leen neex ba tax na tey jii sénégalais bu waroo bu bu waroo ak yéen xalaat rek baaxul tekkiwul dara. sénégalais bu àndul ak yéen gis-gis ci ni ngeen di doxalee réew mi rek ngeen bundu xataal ko ci réew mi wala ngeen jël ko dugal ko ci kaso bi laax ko jant bi ci ban réew la ñu nekk ngeen ne kenn du ko wax ci ban réew la nekk sénégalais yi ñoo mànkoo woon jël seen ay carte fal leen mais ceci n'est pas dit que yi ay jaam lañu dañuy topp seen ginnaaw loo leen def noonu la ah nit ñi dañuy wuute xalaat ci démocratie la ñu nekk mais ku wuute ak yéen xalaat rek kooku non non opposition la bokk ku wuute ak xalaat ak yéen rek non non daf ñuy sonal dañ koy dóor ci kaso bi ku wuute xalaat ak yéen rek non non ngeen gàttal deram il faut arrêter moomu leen réew mi moomu leen nit ñi aussi il faut qu'on se respecte dans ce pays ngeen jox nit ñi cër nit ñi delloo leen cër boobu fii koo fi respecté mu respecté la ku la respecté wul bul ko respecté foofu la ñu toll ci réew mi. à la boo toogee ngay xool dafay mel ni mais ñii réew mi dafa wadd ci asamaan ñu capté ko rek def ko seen moomeelu bopp te réew mi tàmbali bu kenn xamul ku nekk jaar fi. jiite réew mi ba mu ayam jeex mu dem non non ngeen ne yéen daal seen ay moom walla waaw ku wuute ak xalaat yéen rek moom moom musiba day xëpp ci kawam walla dangeen ngeen koy jébaane ci réew ci ci ci ci ci ci ci ci àdduna bi il faut arrêter Pape Alé bi mu tàmbalee ba léegi wax leen rek kan. lan la mës a def loo xamante ne lu dul combat de principe mais combat de principe boobu bi mu ànd ak yéen en 2011 ñu leen di bunduxatal di leen xoññañal ci réew mi mais boobu d' accord ngeen d' accord ngeen ne journaliste la bi mi ngeen jëlee réew mi def naka solo noonu mu wuute ak yéen xalaat ah là il n' est plus journaliste là c' est un militant c' est li muy wax arrangé wu leen c' est parce que position yi muy jël arrangé wu leen loolu mooy malhonnêteté intellectuelle xam nga nit ak lu mën a xew ci àdduna da fexe am posture bu responsable nga gore nga seedeel nit nit même boo d'accordul ak moom ci doxalinam seedeel ko jikkoom nit même boo d'accordul moom ci ni muy gisee ak ni ngay gisee mais ci démocratie lañ nekk ku ne ku ne am na latitude gisee noo xamante ne dafay du méngoo ak sa morom ni muy gisee mais ceci ne ceci ne ne signifie pas que nit kooku da ngeen ko war a tam dëmm wala da ngeen ne wala jeter du discrédit sur lui ci koo xamante ne xamoon nga ko démb ngeen di jëflante position bi mu am tey arrangé wu la nga ne non comme position bi mu am arrangé wu ma te man xam nga position bi ma nekk nii mooy position bu confortable bi parce que sama poste lay xool noo foog ma dóor ci kawam mais Pape Alé du ku ñuy dóor ci kawam di jàll de. li ma la woon wax sànq laa leen wax li ma leen di jox nii entrée bi la plat de résistance bi ak dessert bi avec la petit café qui a qui va avec bis bu génnee nga jot ko yow ak sa morom dama ne réew mi sénégalais yi nañu delloo si waat seen xel xam ne liy nekk di xew ci réew mi bu fekkee da ngeen koy xoolee benn bët bisi ngi ñëw ci kanam ngeen bëgge koo xoole ñaari bët mu tëleen parce que nag mënuñu nekk ci réew moo xamante ne ay nit ñoo ko jiite ku wuute ak xalaat ak ñoom bu ñu la mën a xëcc bu ñu la bu mënul a xëcc ci seen wàll jël la toroxal la loolu day jeex ci réew mi ah te loolu nag sénégalais yéen yéen ko mën a jeexal ci réew mi yéen yéen a am seen ay carte électeur yéen yéen ay fal yéen ay folli ku leen neex mooy falu ci réew mi ku leen neexul du falu ci réew mi jël leen seen ay responsabilité jël leen seen ay responsabilité face à cette énième forfaiture mënuñu jël justice boo xamante ne dañ ko fiy teg koo xamante ne arrangé lu leen ñu jël ko dóor ko ci kawam sénégalais yi nañu jël seen responsabilité encore une fois nag may wax ka ni maa ko waxoon dama koy waxaat man Pape Alé liggéey na pendant vingt ans ou bien vingt deux ans dans la presse sénégalaise kenn musuma dégg ci ay mbiram musuma cee laal musuma cee jege à part li may sëq ak moom ci waxtaan mais mbir day toll foo xamante ne bu ñu jàppee nit bu ko jaay doole ci lu teguwul ci yoon te yow ngay xeexal ñeneen ñoo xamante ne amook ñoom benn relation ci dañ leen ni jaay doole yitte la ak farata nga taxaw ci loolu laa nekk man parce que nag encore une fois justice justifiable yëpp la war a lal mais nag na fekk ne buñ lay sosal wala buñ lay waxal dara na doon loo xamante ne lu dëggu la na doon loo xamante ne lu jaar ci yoon la bañ a nekk ci jaay doole. Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk dañuy faral di wax ne benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar mais bopp boobu xar nañ ko en quatre parties bu yàgg a yàgg a yàgg. parce que bu ñu demee ba toll ci réew mi foo xamante ne nit mënta am dëggam téye ko mu leer ko ne dëggam la ñu salfaañi dëgg googu jaay ko doole c'est parce que rek dafa wute ak ñoom xalaat l'heure extremement extrêmement grave pour dikkaat nag ci li nga xamante ne moom moo ñu taxoon a jóg mooy tontu ki nga xamante ne moo di Moustapha Diakhaté liñ ci wax duñ ci dellu ci waat dama ne boo dee mag di muskalaf nekk ci réew mi am fi njaboot am fi ay doom da ngay fexe nga respecté sa bopp respecté sa bopp mi ngi tàmbalee ngay wax dëgg ngay wax lu nit dul weddi beneen bi ci tegu mooy nga fexe góorgóorlu ba li ngay séq gor yi mel ni yow liñ ci xam ci dëgg bu jotee nga am courage taxaw wax ko te fàtte position ce pays là n'a pas commencé en 2012 te du jeex 2024 il faut que ça soit très clair réew mi jeexu tàmbaliwul 2012 te du jeex 2024 que ça soit très clair c'est pas parce que da ngaa yor nguur ko lu la neex ngay def c'est pas parce que yor justice que lu la neex ngay def Et nous allons continuer. parce que tout simplement dafa bari loo xamante ne day xew ci réew mi nekk injustice nit ñi toog di seetaan les Sénégalais prenez vos responsabilités le vrai pouvoir se trouve entre les mains du peuple mooy seen carte électeur yi Prenez vos responsabilités. Faites ce que vous avez à gis nga combat bii nii du combat wu Pape Alé attention wala ma Samba wala ma Demba attention foo faut que ça soit très clair combat la bu nga xamante ne dañ koy mener pour l'injustice dans ce pays injustice bii xew ci réew mi dafa ëpp ana ñi nga xamante ne rapport nag moo la épinglé ci ay milliards mais ñi ngi doxi seen soxla Pape Alé sàccul xalalu alalu askan wi de ba tax mu dem ci kaso bi jàppuñu ko ci naka sa noonu de ba tax mu dem ci kaso bi et ñi rapport OFNAC épinglé noir sur plan écrit bind mu leer ñooñu anañu promotion lañ am nekk ay DG ak ay ministre loolu mooy xew ci réew mi kumba am ndey ak kumba amul ndey boo faree ak nguur lu la neex def boo faree ak nguur mën ngaa tooñ boo faree ak nguur mën ngaa jëlloo moomul boo faree ak nguur mën ngaa def naka solul noonu mais du mujj fen ci yaw de ndax danga far ak nguur mais boo wuutee xalaat ak nguur sondeel sax boo ko sàccee ci boutique yow rëbës ngay fanaane sondeel ngeen defe ne noonu la réew war a doxee ngeen defe ne noonu la ñu war a fonctionner et bu ñu jógee nit ñi di wër plateau télévision yi di tëgg ci seen gémmiñ naan nous sommes dans un état de droit loolu mooy état de droit il faut qu'il arrête il faut qu'il arrête li ma waxoon ci Moustapha Diakhaté nag ci tàmbali dama koy maintenir léegi mu leeraat tu es libre dem ci plateau télévision bu la neex tu es libre dem ci site internet bu la neex wax ci Pape Alé mais dama lay xamal benn affaire mu leer boo waxee ci moom ngoon bë suba ngoon maa ngi sa kaw bu dee bëccëg la guddi maa ngi sa kaw parce que foofu la réew mi toll. et vous pensez que Pape amul njaboot ci réew mi wala amul soxna wala amul ay doom te vous vous permettez de de jeter du discrédit sur la personne comme ça Pape Alé ko judd ci réew mi njaboot la am ci réew mi am fi ndey am fi bàyyi bokkul ci ñi ngeen di saaga muy jàll de bokkul ci ñi ngeen di saaga muy jàll ku wax naka sa dul noonu bu fekkee suba la ma ne la maa sa kaw foofu la réew mi toll moomu leen nit ñi il faut que ce pays là les nit ñi respectante wëggante joxante cër. ma bëggoon nag tënk jeexal ci lu am solo loo xamante ne tamit ñu ngi koy waajal comme ni ngeen ko xamee ci ayu bis bi ñu génn ci Paris am nañ manifestation bu mag devant le siège de Mediapart mu nekk ay journalistes d'investigation yu ñu ràññee ci bitim réew bu ñu noppee ci loolu def na li nga xamante ne bii moom moo di remettre un mémorandum Media Park loolu nag benn action la woon bu ñu tàmbali samedi bii ñu jëm muy le 19 novembre. Euh, dinañu nekkaat Paris. cette fois-ci nag ce sera à la place. place de la République à la place de la République dinañ